gis nga ku la matul nawle ci àddina bu mu doon sagaynde te boo nekkee ci àddina di dund góor góorlul ba bu la kenn yërëm nit ñi nag mën nañ laa colomotive waxal la wax du ñaaw ju nekk sosal la mun nañ laa sosal sos wuñ la weŋ waaye buñ la ca fekk bul di yërëm talu bul toroxtaange saa yoo xëyee jëlal sa liggéey bi def ko xarit àndandoo ak gànnaay boo ko defee rek doo juum waaye gis nga tànk yaa ngi topp ci ginnaaw nit ñi di ut ay xarit ak di ut koo collègue di chercher ku bari xaalis nga topp ko ci torox tànge ngay mujje ñu lay toroxal di la yërëm naan la ndey saan ay waay ndey saan moom loolu la ñuy bëgg saa yoo amee personnalité dignité am fulla am fayda xooloo lu nit am ak lu mu ñàkk nga fukki ci sa liggéey kenn du la bëgg noonu lañu lay def di la sosal toroxtaange bu nekk wax ju ñaaw ju nekk ñu la koy wax ndax Sénégal bugguñu kuy dem te dal ca lalu hôpital ya feebar ñu doog a ñëw di la apprécier naan ndeysaan ak a baax moom kay ni mu baaxee di la ñaanal te duñ la yéen a jàmm bu ñu sañoon nga xëy ñu ne dee nga ñu bind seen RIP ak di statut naan la RIP ku baax la woon ku nangam la woon sénégalais yéen a bonte soxor te iñaan yéen lu tax mënu leen bëggante yéen Afrique ah nit ñi daal yàlla wàccee leen ci àddina bi teraanga yi bëri ñu ne dañ ci am ngeen ne yéen kenn du ci am ku ci am ngeen sosal ko bu ne wee nga waxal ko wax ju ñaaw gëm leen seen bopp benn yàlla moo fi maye fii kenn mayu fi nit duuli mbaam yàlla mooy maye yàlla yàlla ji maye jënn yàlla la mooy ki ñu fi wàccee wàccee fi ñëpp matériel yi pour nit ñi la du mbaam yeeg xar yeeg xaj yi may la nit ñi jàmm ñu dund e ala kama sa ala naa xiraatu sa bref ngeen na yéen nit ñi nañuy torox rek di topp seen ginnaaw am leen jàmm fu ngeen tollu dee leen reetaan di bég di happy di enjoy seen life bu kenn xam lu leen metti di leen yërëm ndax nit ñi bëgguñu ku baax de bëgguñu ku baax ku am personnalité ak dignité bëgguñu kuy liggéey ku topp seen ginnaaw di leen ñaan di ñaanaatu kooku la ñuy bëgg ak di la yërëm ngay feebar di tëdd ordonnance sax doo ko mën a jëndal sa bopp ñu toog duñ la ko jëndal toog di la yërëm loolu la ñuy bëgg mayu leen fi nit duuli mbaam lu mu amul lu ko yàlla mayul yéen yàqiti mu laa naa lan ngeen fi may nit fii kenn mayul kenn yàllaay jël wërsëgu nit rek jaarale ko ci ci ci nit nit nga war ka kaa jox may nit ñi jàmm ngeen na yéen kenn du dund ci jàmm ak salaam boo fi amee xaalis doon nit ku baax ñu lay sosal di la xas di la wax wax ju ñaaw bu ñu amul wax ju ñaaw ju ñu wax foog ñu dem lijjanti ko fabriquer ko ñëw di la ko waxal fu ngeen ko teg nit ñi nag dinañ dund si jàmm ak salaam moomu leen dund yi dund bi nit ñi war a moomu leen ko yàllaa ko moom borom bët bu rëy bii mooy la nit ñi jàmm ñu dund gis nga sama vidéo nag bere fag yaa xayti mulaanaa du ko am ah waay soxor ngeen waay